asalaamaaleykum mbokk coalition jonn 2024 xaritu Mohamed Boun Abdallah Dionne yéen ñi nga xam ne Mohamed Boun Abdallah Dionne am ngeen cofeel ci moom man Thierno Lo bi mu dénkoon comité d'orientation stratégique ñu tuddee ko COS mu nekk nit ku mu def mag teg ko ci wetam ñuy nasandoo ak di feccoondoo maa ñëw di wax yéen ci moment bii ñu toll nga xam ne leen nit ñi amuñu yéene ju baax mi ngi mel ni nekkuñu ci weeru koor fekk ab jullit nit ku baax ku bëgg senegal ku liggéeyal réew am ak ndog comme ni ko ñëpp di amee feebar ñëpp koy def ñëppay sibiru ñëppay am grippe ñëppay am feebar di wér Mohamed nekk di liggéeyal Sénégal taxawal ab coalition jël xam-xam jël alalam di tourner ci Sénégal nekk ci télévision yi dem Touba dem fépp di politique ba ñëw am lu ko dal baatam feebar dal ko mu toog këram wara faju ngeen toog di ko ŋapp ŋàppee ñeen ñi nga xam ne bëgg élection yi taxaw di ko yéene mu nelaw ñeen ñi nga xam ne di tiital na leen bëgg nga ne élection yi di ko yéene mu nelaw ñooñu yàlla suñ boroom lañuy wax palaasam yàlla suñ borom la ñu weddi te it seeni i jikko ak seeni xol lañu wone wante Mohammed Boun Abdallah Dionne mi ngi këram am na lu ko dal feebar na mi ngi toog di faju nee nañ ko toogal fii ba nga faju parce que yow mënu génn war di wër di wax wax a wax wax moo toog mu toog di faju di waxanteeg ñun ñi nga xam ne bile ñoo nekk ci campagne bi di ko def moom. moo jël ay moyens yónnee leen ko yéen ñoo ñëpp ñu tasaare ko jox leen ko fi mu toll ni génn war di ko campagne moomet moo def declaration génne ko di toog këram di wax mënta wax ak militants yëpp mënta nekk fii moom di tontu ay réseaux sociaux ak di nott ñoon xonal bonul li mu leen di jox ci ndigal. mooy bu subaa dem leen bulletin de vote bi nga xam ne bi mi ngi nekk ñu def ko ci teg ko ci urne yi ngeen woteel ko bu ko yàlla joxee réew mi bu soobee yàlla da ngeen ko gis fii mu féex génn ci lii mu nekk dem def prestation de serment diriger réew mi nit ñi nga xam ne bi seen xol baaxul ñu fàtte ne ci weeru koor la ñu nekk fàtte ne jullit ak jullit ñu ngi ko bokkulul sax diine wërte yéene doomu aadama bi mu feebar waa benn bokk yaakaar yi nga xam ne bi léegi yëpp ñu ngi ko yéene lu bon seen biir yooyu am na fa ñoo xam ñu ngi def jalise am na ñu fa yor crise ay ay ay cancer am na ñu fa yor ay hépatite B am na ñu fa ay diabète am na ñu feebar bu gën bon ci feebar yi ñoom ñëpp ñu ngi ko yor te pourtant ñu ngi nii dox di def ay campagne te pourtant kenn tuddalu leen ko tudd yàlla du def bu ñu tudd mukk ñu fa yor feebar yi parce que ñun ay xoli jullit lañ yor ki nu àndal di Mohamed di suñu lideer di suñu xarit di nit ku baax day feebar nit doomu aadama la day feebar comme ñëpp te da feebar di wér nit ñaa ngi fi grippe temps yi ñu defal leen ay perfusion defu leen lu nekk te bu soobee yàlla ak yonent bi Mohamed mii ñuy waxanteel ñu mu nekk këram tey duñ ko génn ci télévision pour muy weddi duñ ko génn muy dem gosaar naan day weex day weddi wérul day toog faju bu wéree ñëw diriger Sénégal kon nag yéen waa coalition Dionne ak ñi bëgg Mohamed jàpp leen ne lii rek mooy dëgg Mohamed mi ngi dund yàlla na yàlla yokk aw fanam Mohamed am na feebar bu ko téye nii du feebar yi ngeen di dégg nag feebar yu bon yee nga xam ne bii moo wër ñee nekk ca benn bokk yaakaar ay cancer yaag ay euh, lu nekk nekk fa hépatite B yu métti yaak lépp nekk fa nekkul ci Mohamed Mohamed li ko téye ñii ñun xam nañ ko te bu soobee wax ak yéen ci élection yu pass bi bu dina dem ko munut dana toog fi mu toog ñun ñoo ngi wax ak moom mu ngi sant yàlla suñu borom kon nag lii laa bëggoon di wax leen ko yéen ñi gëm jonn jàpp leen ci lii bu leen kenn tiital ñi nga xam ne dañoo am seen yéene yu bon ñooy def yii ñuy def ak di colporter ko xam ngeen ne Mohamed bu yàlla jëloon ba kon xam ngeen ne man du ma nekk Daaru Musi di campagne ah kon ñoom mu ni roog Cheikh Diop jon nag gars yi yëpp nga dégg leen ñii nekk ñu war ko li ñàkk ñoo xam la ci ñu ñoo xam dëgg xam nañ ne buñ nekkee ci àll ba boobu Mohamed mi ngi toog di di di sant yàlla suñu borom lii daal laa amoon di leen ko wax am leen pastef yéen sénégalais yi bëgg ku mën a yor moom réew mii di jël addinaam ak santeem ak yëpp joxe ko mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne ñii ragal nag ak njub ragal Sénégal gu ñëpp ànd juboo ragal borom xam nga ñoo bëgg Mohamed disparaître mais bu soobee yàlla ñoom seen bëgg ak yàlla ak dogalam maa ngi gërëm di sant wasalaam yàlla na ko yàlla suñ borom wéral mu continué ñun combat bi jërëjëf.